ñetti ndey ndax fukki fan juróom-benn ci weeru me gi ñu nekk moom njiital parti Pastef li war dem wuy yoon moom ak Adji ñu war taxaw ca kanamu chambre criminelle ngir régler coowal viol di siifli ko Adji di tuumal ay nit yuy liggéeyee ci wàllu justice bi xamal wàllu observateur ne bu ñu nee suba la procès bi maanaam fukki fan juróom ci weeru me moom Ousmane Sonko war naa dem ca greffe ba ngir wane ne mi ngi ci dëkk bi te ci ëllëg sa dana dem wuy ji tribunal ngir mu àtte ko bu ko deful danañu ko dem jëli fanaanal ko tribunal bu ñu xëy àtte ko journal bi dolli ñu ci ne moom Ousmane Sonko def na démbit ab point de presse ci diirub ñaari waxtu wax na ci résultat analyse yi mun jot na ko te la ñuy wane mooy force de défense ak sécurité yi dañu ko bëggoon a moo tax ñu sotti woon ko liquide wax na ci mbiri justice wax ci mbiri Sweet Beauté wax ci mbiri Frédéric Napel di alkaati tamit ci désobéissance civile Les Échos bi di campagne de désobéissance civile jëmee ci justice bi maanaam xirtal ak Macky Sall ndax Macky Sall mi woote dialogue bi jubluwu ci dara lu dul nu mu mën a daganalee troisième candidature bi moom Ousmane Sonko kii di Doudou Ka xëy na di ko wax boppam di ko yamale ci Direct News Doudou Ka ministre des transports aériens président bu mouvement déggoo pour le grand Sénégal bàyyilul Ousmane Sonko dara wax na ko luy tàkkate du fay Doudou Ka nee na képp kuy wuyoo républicain boo gisee ñuy attaquer république bi di ko saaga ak di ko ñàkkal fayda amatoo droit toog di seetaan mu ne Ousmane Sonko ak li mu dëkkee mu di di décrédibiliser institution yi ci réew mi dem na ba jéggi dayo nag ndax bu yëkkatee ay kàdduy tuuma yu garaaw gàll ko ci ndoddal force de défense ak sécurité yi ne ñoo ko doon jéem a assassiné wax joojee ay wax du ko gën a rëy duudu ka ne Ousmane Sonko ak li muy Thomas Sankara Sankara lu rek loolee war naa tax nit ñi xool ndax am déet li jox di maire bu Ziguinchor duudu ka ne ci direct news Ousmane Sonko la fa deful fukki weer ak juróom yi mu def ca bopp maire bu def benn bilan bu dul di dig nit ñi lu mu leen dul def bilan bu catastrophe ak ay kees yu vide ba ne pëng wëng la témoigné nee nañu moom la Ousmane Sonko ak Aminata Touré def Macky ci dialogue bu mu mu ne président Macky du dialogue moo ko yitteel li ko yitteel nee na mooy nu mu mën a jàllale troisième candidature bi te waa Parti démocratique Sénégal ñoo ko ca nar a jàppale lëkkute nañu waa yeewi askan yu bokkuñu gis-gis ci dialogue bi Macky Sall Sall ndax ko yitteel bi la ñuy am ndax ci projet de texte ca lañ koy jaarale li ko ëppal solo nee mooy mën caa bokk bés bi le jour bind ne Macky xar na yeewi ñaar ndax ñi ci biir yeewi askan ku ci nekk ci ñoom ak sa position ci dialogue bi Khalifa Sall nee na dialogue am fa la force ne demul ci dialogue boo xam ne ki ko woote wutu ci dara dul set nu mu ma liquider ak nu mu mën a valider troisième Aminata Touré jàppee dialogue bi espèce dialogue boo xam ne li ko fi indi nee na loxo parti démocratique Sénégal génnu ci ndaw yi bokk ci grand parti di parti El Hadji Malick Gakou journal Bi Le Jour nañu ñoo ngi sàkku ci seen leader El Hadji mu bañ a wuy ci dialogue bi suur nañu ak féewaloo am na ci biir opposition bi waroo ci seen biir mi ngi tukkee ci waxtaan yu président bibliothèque ba lakk na journaliste bu mag ba dem na journal l'observateur las enquête tribune source a li quotidien vox populi walf quotidien le quotidien témoigné soleil national ak sud quotidien ñoom ñëpp xëy nañu dañu tàggee ci seen xëtu njëkk maam les camara mi génn àdduna keroog samedi l'observateur ak vox populi dolli ñu ci ne école bii di sësti moom maam les camara moom la ñu ko tuddee léegi abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk ay wér te ci réew mi ak bitim réew